toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV.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 الله هو الحي القيوم الصمد المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين مبوك bokkal مبوك جوليتي mbokki am di jàmm yi dafa mel ni bët set na moo tax taxiya bi ma bëggoon a ubbee dama koy gàttal ñu maf ñaan du gàmmu ndax addul kalaami ma afaadal mustamia nahwu saa saydu naw umrun muttabi loolu la borom grammaire jàngale ca mula mulatul ihsan maa ngi nuyu mbooloo mi ci ndigalu sëriñ Babacar si bu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabba mu wuutu ci magam xalifa bi sëriñ Babacar si xalif général bi Tijaan ak magam Cheikh Al Hadji Malick Sy Maodo ak mboolem usra al malikiya ak Tiwaawan yi di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool ci sunu kanam sëriñ baa ngi nuyu waa bokkal yépp di jiital ci nuyoo bi imaam yi ci dëkk bi di ko teg ci loxo imaam mii ma jàkkaarloo di ci teg dëkk bi di ci teg boroom xam-xam yi ci dëkk bi di nuyu waa tund yi ndax ku ne tudd ne gaaya boo tuddee bokkal tudd gaaya tudd nga dëkk yëpp fii ba wàllu di beral nuyo sunu bay al alxaaji Idrissa Mbeng anzilu annaasa manaasira dafa ñew ci serigne bi fekk ma fa waxtaan ak mom dem parce que ñu nañu na ngeen baye xel seen papa Idrissa borom xam-xam la te doomu nit yalla la bu fi ñëwatee na ngeen ko xam kon papa ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sunu baay di maam Diagne mee toog di goro ci maam yàlla ji Ibrahima Sakho di borom xam-xam di waaye di borom cër ci yàlla ma fekk ko ca Libreville te zawiya Cheikh Sidi Hadji Malick ba fa ne mu dajale mbooleem taalibe tijaan yi nalen dafa am gam bu tedd bu reuy bu liggéey Tiwaawan bi ma nuyu ta man kenn ku ne xam na ne tedd ma reuy ma ñew mu teral ma way teranga ja yëpp lama ca daxal daf ma dugal ba biir neegam mu jangal ma bismillahi ismullahi al-a'zam ci tariqatu tijaaniya lu ma mos a teg sama bët bi ma ñëwee woon ko Pape Serigne bay Abdou daf ko ne ma mbaa yëg nga ne boo ko toppee man dootuma la yónni ma ne ko kon teg naa suuf luy tax dootuma yónni ma ba man papa bu ma la fekkee ci mbooloo war naa la jox sa wàccuwaay boobu di nuyu sunu papa Hadji Mansour mi toog papa Dagor Abdoul Aziz wa ma maa um min al wasl al murafaq min Tiwaawan ilaa huna Abdoulaye junj na ko maag ñoom a ànd waaye ñoom ku leen fekk ci tànt war leen a nuyu ndax dañu am cër ci bari na ay Abdoul Aziz Mbaye yu ne ci àdduna bi di roy di ca bari na sax ay Moustapha bari ay Chérif ñuy Chérif bi awoo la ñuy awoo bari bàyyi daal boor lool ba bari ay Sidi Mbaye ak Gaj Mbaye te loolu ndono la walil waarisi ma mawruusi waaye walil waarisi maalul mawruusi yéen nag maalil mawruusi ngeen am di wax ne sëriñ baa ngi ma boole ak alaaji Mamadou Gueye xaaji ma Kumba Fall Ibrahima Mbaye bu sëriñ Mbaye Mansour xalifa bi ma fekk fi seen doom Aliou Diop Niass ñoo ñoon la andal ñew ci tan waye di beral nuyo jigen ñi yaakaar naa ne thème bi ma tan bëgg ko waxtane tay ñoo ci ëpp yoonen ci bi bi mu gane aduna Makka yàlla yónni ko Màkka mu gàddaayee Màkka dëkki Médine def fakku Màkka génn ñu denc ko Médine ba tey ñun ñëpp ñu ronu tànt bi di ko tàntal mamalaa ji maa yi nee na ñaar rek ko fekk Maodo nee na bi yonent bi ganee àdduna ak bi ko yàlla yónni ba keroog ñu koy tëral fa mu tëdd ñu di ko siyaara sa mamalaa ji maa yi nee na ko fekk ñaar ñaar bi mu ko andee ñaaral ko séddoo ku ne jël benn kenn ku ne ba nga benn am nga loo ñamal sa morom waaye kenn ku ne am nga loo ëppalee sa morom du dem la ñaar yu yam wallaahu wallaahu arsalahu lil alamina udan góor ñi jël wa rahmatan jigéen déggoo li ma wax. mbaa yëg nga ne jigéen ñi góor ñi leen ëpp ci jàkka yi mbaa yëg nga ne ñoo leen ëpp ci daara mbaa yëg nga ne ëpp ci bërëbu liggéeykaay yi kooku wutal la jël waaye yërmande dimbale nit ba mu jàll nag jigéen ñee ko jël ñu jël raxma góor jël sax xudan ñam tuuti ci raxma jigéen ñam tuuti ci hidaaya ñu bokk société bu mu jot a yéen góor ñi nag seen widaaya boobu du ma ci wax dara kay rahmatul jigéen ñi lay wax. namu ngeen. yàlla bu tuddee alquran doomu aadama. doomu aadama ku yàlla joxe na la insaan anta ku ñu ko wax rek boo yëgoon kuñ ko tuddee rek boo yóbboo ci Abdoulaye Mouride yaa ngi muy dégg. innal insana la yatqee arraewu sànne yàlla nee na doomu aadama maa ko xam bu ko laaj kenn laaj moom. lu tax balaa moo dugg ci biiru ndeyam mën a woo bi nekkee ci biiru ndeyam maag moom la su génnee te xamagul nu mu tudd xamagul nan sant maag moom la su demee ba man maag moom la bu tëree maag moom la buñ ko dencee maag moom la maa ko xam day yàq tey. dafa gaaw ci benn kay mu ne àll ak ewu bis bu denee moroom mbaa mu làmp poosam mu gis mu faj soxla te tëju dafa gaaw ci damu ba benn insaan ko أخبر من أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا amul lu may man koy laaj ma jure exemple wu yaram amul benn question pour ñu Mandiang man yàlla maa ko bind ci tokkal ko bëndi ku mu laal dofam kooku ma formé la ca ba nga mag bi mu màggee xam nga loo ma fay lu ma fay waxta si mu nit ku muy bëgg ak ku muy bañ ku muy noonal ku muy àndal waroon na ma man yàlla ci sama mbir waaye ma jox ko misaal ca boppam ne ko ay doomu aadama bul jëppi jëppi waaye war na seetal ko mu lànk rek ne du ko du fàttali ko boppam. xanaa ñaari doomu aadama moom laaj ma beneen. fal yanzuril insaanu ilaa ta'aamihi innaa sabbabnal maa'a sabban summa shaqqaqnal arda فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغدبا وزيتونا ونخلا وحدائق قربا وفاكهة وأبا متاعا لكم وللعنكم ويبقوا ويجبي جبي فإذا جاءت الساعة وكان يوم يفر المرء إبليس والإنسان ما كل شيء بس اليوم على مدود المرء kon ku ñu tuddee doomu aadama insaan booy boo tiit waaye ku ñu tuddee almarku booy boo tiitee marku mooy ku ñu defar insaan mooy ku yëg ko déggoo li may wax buñ ne la anta marhum mooy ku ñu préparé nga yàgg buñ ne la anta insaan ku ñu baax sa bakkan lu la neex ma wax la beneen doomu aadama yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbikal kariim allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalaka fi ay suuf maa saa raka doomu aadama xoolal sama jaar yow defar la ba doo mbaam mbaam du yow doo fas fas du yow nga toog ci kaw fas di ko dàq amoo loo may fayee lu di ci sama kaw yaa a miir li rabbihi lakanud bay gis yaa nga dégg lakkanur xam ngeen luy lakkanur c'est jàngkat Abdou Aziz Mbaye lakkanur mooy moor wu fo moor wu ñu takk te mosuñ koo takk fu borom tëj ci jëm mu jëm fa kenn yàlla nee na doomu aadama noonu la mel ak man su ma nee gauche mu ne douze dix mu ne droite su ma nee droite mu ne douze waaw doomu aadama moomu nag la yàlla bind mu mel noonu yàlla yebal doom yàlla yóbal yonent bi mu bëgg a jëlee doomu aadama ci insaaniya jëlee ko ci al insaanu yóbbu ko ci al insaan bi loolu laa bëgg a wax. kon waxtaanagoon. xaw ni mooy léegam bi. pour nga xam ne nit ñi am na ay insaaniyatu Pape Dabo li ngay njëkk a tourné ci moom mooy nit bu amee responsabilité rek am na insaaniya. yonent bi kat da yàlla wax lii may bëgg a wax te mosu koo wax kenn te dootu ko wax kenn ku yaakaar mu wax ko sa baay booy boo nga dem. du la booy boo nga jëntaan bi du ko wax sa baay du ko wax sa sëñ. doxala yu mu ko ah. ana jalisu man jalisu man jaalasa yow yéen bi ku toogaa rek man ma toogal boo muxtaara man axtaara ko boo taanu ma taal wa aniisu man aanasa ko ku la wéttali ko ma wéttali ko wa muhibbu man ahabba ko ku la bëgg man yàlla bëgg ma ne sëñ ñu kenn déggagul loolu bàyyi kenn déggagul ko ana yow yonent bi yàlla da ko am mu ne ko aniisu ana aniisu man aanasa ku la wéttali ko ma wéttali wo jeli suma jaasa ko toogaale Umuhtaru ko toogaale wo muhtaaru man ihtaara ko kula taanu ma taanu ko man yalla wo muhibu man ahaba ko kula sopp man yalla ko sopp ko kula yalla taan mu gënal ko ñëpp yalla defal ko ten ñaar moom rek ko am dama man dimbam man tayam man ëllëgam. doo ma laaj ku man tayam man ëllëgam. man tayam man ëllëgam. boole nit yàlla yi kenn laa ci xam Cheikh Alaaji Abdoulaye. moo ma ne ci Sénégal bu réew mi tàkkee mu ko projet bi wax ñëpp na dégg kon man na tayam. mu génn àdduna ñu denc ko bu réew mi tàkkee ñu teg kasatam ñëpp na dégg. kon man na tayam man na ëllëgam waaye mënul démb. Rasulaay nag moo mënul démb man tayam man ëllëgam loolu laa bëgg a ma yow. dèjà mu naan naa fay nag yàlla la xaalis yow. jërëjëf waay dal na yàlla fay. ah góor la ñu ko jox. Ah, mu bind jaam bu ñuy tuddee Firawna mu tudd insaan yëguloo ne yëguloo ne Abdul Aziz may Firawna dund na ñeenti téeméeri at amul nguur amul jabar jot ci nguur gi ñaar téeméeri at di célibataire takki jabar nekk marié bi buur ñeenti téeméeri at doo ko mu dee ñu dugal ko ci géej gi mu delloo ko ñu suul ko suuf si laaj. beew insaan la. dama ne dama ne sëriñ si yéen a may dégg bàyyi biir sa may dégg Iblis nekk na célibataire nekkul buur amul soxna amul buur ñeenti téere daal jot ci nguur gi nekk célibataire ñaar téere daal jazakallah naa xayra takk soxna nekk buur ñeenti téere daal doo ko faatu ñu dugal ko ci géej gi géej gi lan ñu dellu ko ci suuf si suuf si bañ xam nga lu tax dafa nekk insaan te nekkul almal moo tax yonent bi muy wax saxaaba yi maa ngi yéen ëllëg fuy jëm waxul al insaanu maa man ahaba daf ne al mar'u maa man ahaba ndax moom du insaan mar'u la jazaakumullaahu xayran yàlla na xaalis yomb leen xam naa su ngeen jógee rek góor ñi xam ne caaxaan ah teel naa seetaan maa ngi ñoom maa waxoon ma ne yàlla daa si dana ñaan ak hidayatu wa rahmatu jigéen a jël arrahmatu loolu lay jàng jërëjëf yal yàlla fay jërëjëf yàlla koo xam ne insaan la muy firaaw na yàlla yëkkati nguur jox bàyyi daal foofu mu gis boppam dégg naa ci wëli bu mag ku am cër ci yàlla day nëbbu cëram muy sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes mu ne ñett yi nit gën a bëgg moo gën a yées ci nit mu ah. ne sëriñ Babacar Sy yooyu yàlla mu ne nguur lu nguur nguur nguur gu borom jikko rafetul nguur gu borom jikko rafetul ak ban mu ne borom wërsëg xale bu teel a am wërsëg te yarul ak ban mu ne xale bu judd ci bànqee ko xamaluñ ko bopp. dégg leen li may wax. xale bu juddoo ci bànqee ko xamaluñ ko boppam day yor numéro bu bàyyi. bu la yàlla tegee nguur ci sa loxo te sa jikko rafetul koo gis ko yee. nguur dafa bëri. ci la wala rek dafa am nguur te jikko ja rafetul. yàlla may ko mu ni yor nguur gi ñaar téeméeri at kenn sëkkatul li gën a danger ci nguur mooy ëpp ko la ko góor wolof dafay wax benn baat xale yi Sénégal dañ koy wax te baat bi danger la Moustapha doo ma laaj baat booy mooy lan man damaa gëm sama bopp boo dégg mu ko wax rek mu sànq damaa gëm sama bopp nit du gëm boppam doo ma laaj ku muy gëm day gëm yàlla wóoru rasul yi lay xam boppam dégg nga ku gëm yàlla wul rasul lay xam sa bopp doo daal waaye ku gëm sa bopp daal. yàlla dañuy gëm amana rasul bi maa unsila rasul sax ne man gëmuma sama bopp ñun rasul laay kooku de mu ne amana rasul bi maa unsila mi rabbi yi boo ko laaj waaye gëmuma sama bopp. wal malaa'ikatu kullun aamana billaahi waxuñ amanu bi rabbi bi nafsi billaahi moo leen malaaka yàlla bi ko continué yi war a sori daanu fare ko benn aadama o ku gëm yàlla doo tàqale kenn ma ñëw o ngi ñëw ci xilaas eh eh Seydina Seydina Seydina Moussa maa o wax ne yéen ma ne jigéen ñi jëppale loolu laay jàng papi di sey ma dégg Seydina Moussa dafa gën a àdduna ci circonstance bu garaaw o doo ma laaj ban circonstance fekk na ci aw na rey ñeneen ñaar fii ne nag kenn o wu bu kenn opposé wu mu ngi ci danger. ñaar téeméer daal lu mu wax ñëpp ne waaw. mu koy def kon nag comme mooy ñoom kenn ñaanul ana rabu ku mu ah la maa ngi leen kenn sax rek. waaye jigéen a koy duma. jigéen moo koy duma. balaa ngaa xam doole jigéen rek nga dëkk ak góoru benn jabar. waxuma Abdou Mbaye nay lee bàyyi daa góor góoru benn jabar juróoma ko jig mbaa mu xat kër say neex deret di neexal gone yi booy dem tàggool tey kenn tëdd mbaa nga xat ci kër xam nga luy say wu rëy di ko jox neex na rek loolu lu ñu wax nga masra tey neexal xale yi di jëlee bët nag fooy dem bàggoo mbaa kër gi dañ koy tànn. nii maa leen xam. waaw boobu moomoo Pape moomoo boobu moomoo moomoo boobu boobu Babacar Mbaye mayor ma joxe gàtt. ndax man fee laa jëm te ñii parce que ñii boobu ba léegi ñu kenn faale ma dem eh eh yàlla dogal Seydina Moussa Firawna yore nguur ñaar téeméer ak benn opposition mu kay na arabu benn gisaane kat di ko seetal kii de sama xarit moom sama soppa la bu ma fekk jox ma xaalis. waaw moom yow weesu nga foofu. yaa daa bëri yéen passé ngeen jox ma xaalis génneel ma. mënu ma koo génne sama loxo bi daa jàpp. ma dem. mu ne ana rabbu bubbul aala. waaye ñëw na ko firaaw na li ma génn ci biir jógal sa bopp. yow loo ne Seydina Muhammad moo ne su ngeen dee dund maa ngeen ni ci gox gox ba ngeen ni dëkk te amu leen fa ku a mu ne yàlla dootu yebal kenn mu ñëw ci yow lu mu la wax ci gént a la jawar nga yooyu maraaj bi wax wala maa ngi ne dafa bokk ci marka ba tur ok xamuloo ne yëngu yàlla xamuloo ne sunu maam imaamu yàlla da ko may mooy lépp li xam-xamu fekk mu xam xam-xamu usul mu dig moom dégg bàyyi bi sax xam nga li kay kay ko xaaj ko xam-xamu dégg mu am benn taalibeem bu dëkk ci bi ci daal daara ji ni sari mën a firi gént bind na téere ci firi am naa téere ibnu sari loolu di xam na li may bind na ci téere téere firi gént dafa naa ne am naa ci juróom yoo xam ne dama ko mokk ibnu sahib moo ko bi ku mën gént la te lu mu wax dëgg yaa ngi dégg yàlla nattu imaamu Malik masala bu ñëw mu àtte ko waaye loo gént laaj ko du ko xam taalibe bi ci daara ji moom loo gént mu wax ko nit ñi di rang sëriñ bi di rang daal mu xëy ko abal ma daal daara benn sëriñ ngay lay rang ngay wax ngay wax man tane da ngay ci rang ngi man kenn sama ko bi dem ca ba defar fa xaymaan toog fa nit ñi di ko fa fekk gis nga loo dégg ñu di ko publicité subaa ngoon bu dégg bëccëg nit ñi waruñu ko lu ñuy wër kenn du ko publicité Abdoul Aziz Mbaye mos na génne kilib na seetaan leen ma te kuy gàmm woo ko yéen a ngi ñu kenn neew leen kenn loo mën mu muy dëgg boo ci amee digal foo ne ñu fekk la fa lu baax kenn du ko publicité boo dee ibnu sarika jaal ma ne sëriñ génn mbaa ñu may dégg sëriñ bi ko dàqoon moom génn dëkk bi génn taxaw ca nit ñi wër kaaba bi muy tuur ndox ndox bi di si di dox ci kaw ñi wër kaaba bi mu yeewu ne man yàqu na moom imaam Maalik moom mu ne man yàqu na man ko toll ni man li ma liggéey ci diine nit ñi wër kaaba bi wëruma kaaba bi xanaa def yaram mu ne taxaw ca kaaba ga di tuur ndox muy topp ci kaw ñi wër kaaba bi man yàq li muy def mooy alcool dugg ne ko man tënkal mu ne waa ana doom bi li ci ñëw ñu ne ko sëriñ bi yaa ko dàqoon man ca baat yi ko lu ne ma ko woo ñu ne ko kooku bi muy dem daa mel soo ko wooyee ñu ñëw mu woo benn taaj bi ne ko demal ca moom gane ko yow da ngay génn taxaw ca kaaba bi di tuur ndox muy ndox mu firil la xale bi dem fekk ibnu sëriñ ci àll ba ne ko bii damaa tëdd di nelaw génn taxaw ca kaaba bi di tuur ndox muy topp ci ñi wër kaaba bi ibnu sëriñ dafa waxoo dëgg du yow mu daa mu ne ko génn gi ku am jëre ko yooyu di génn ku jeex tàkk ci yàlla ku nit ñi yaakaar yow boo ko génnoon doo yeewu da ngay dee na borom ñoom baal bu ko mu ñëw ne ko sëriñ Balaam yaa ko la nee na yaa ko d'accord waaye kaay def bokk tarak ki nga doon bañ ñu ràññ ko tey garak moo tax gis nga kenn koo teg wuur li yàlla may kenn xam jërëjëf yàlla yàlla fay jigéen ñi maa ngi ñëw ci yéen damay yëndu rek dogoon ñu dugg ci gàmmu gi màggee gàmmu gi yéen ko moom mu ñëw taxaw mu ne sëriñ o oh, mu bul baax ba ca mu ne doo doo mun a ko gars yi toogal ci lal bi laajal li nga bëgg a laaj biir ci maa la koy fii taxaw bi nga taxaw ci kaw kaaba bi daf yaramu ne bi nga mos a ñëw ñu jox la mësa mësa boobu dafay set wecc ba doomu aadama ni ñu koy gisee xam lépp sa mësa noonu lay leere saw mi nga taxaw di tuuru muy toog ci kaaba bi ni kaaba bi bëree njëriñ sa masam ku ci jaamu yàlla yàlla da koy naan nit ñi wër kaaba bi nag mu ne ko boo ëppee ñi ci ëpp dañoo ñuul réew mii nga dëkk ñëpp xam la si kenn du la fi gëm sa masaf ay nit ñu ñuul ñoo koy utiliser te ña ci am féete ëpp cër la ñu am ci yàlla màgg nga juddoo fi nga màggee ku fi ak jàng yaa ko jàngal waaye duñ utiliser sa masaf demal yaa ko woo yi dong la buñ gisee ci jaamu yàlla teg alaaji Ablaye Niass masabu Malick Cheikh Omar Fouti Tall masabu Malick Seydi Hadji Malick masabu Malick Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké masagu di defal fatwa ci mazhabi Maliki. ñëpp li mu ne fii naa dindi rek xam man jëfin. oh day gën a compliqué. boo bindee woo kenn ku muy mubtada wa rafa'u mubtada'an bil ibtidaa kazaaka raf'ul xabari bil mubtadaa wal xabarul mubtadibul li fa mubtadibul faa'ida kallaahu barrun wal ayaatu shaahida loolu laa jàngoon ca Alfiya. wala déet. sëñ Ba Alpha maa ngi lay nuyu. yore ba tey. monsieur Mamadou Habib. ñu ngi lay ziar di la wàccee sa wàccu waay da ngaa fekk yaram yi tànn waaye yaay suñu sëriñ. wa bil tasiqil. Abdoul Aziz waaw buy commencé. waaw foo ko fekk daa war a am lu muy liggéey yaa a ah, Babacar Mbaye wa Ibrahima kon da ngaa bëgg a wax ne bi Babacar ñëwee Ibrahima ci tox waaw bii bokkul ko yokkalewul dara ci boppam la waaw aw de waaw bi waaw boppam daga daan xawaa denc na al muxtaaru sallallahu alayhi wa aïsatan aïsa waxta jamono ba mu koy denc moom aïsa bint si muy waaw waxaan loolu tax mu ma sax wala déet مفعول بلا والمفعول دائما منصوبا ونصب البنت لانه مفعول ما في تسال ما يدك رغم اللي ما يبقى من داخل المحال دغنا الهواء جنتنا هواء تقنا المختار صلى الله عليه وسلم وفاعل به kan la denc mu ne Aïssata bi maa ko luy kañ la ko denc mu wo waxta bi mu koy denc booba bint si binta mu daaf sittin mu daaful bilee wa majrurun bi ikaasati wa alaamatu jarihi kardatun zahiratun fi axiri moo tax binta sitti waxul binta sittun waxul binta sittan amalaaji maari waaw wax nga ne rasulillah moo denc mu ne min xamiyatihi lu njëkk rasulillahi di gàdday jógee Makka di dem Medine ñaata at mu ne ji man trois ans wala dé laataa moo gàddaayee Makka dem Medine lañ ko may sayyidatuna Khadija Aïcha biñ ko ko mayee ñu ne ah mu ne trois ans la fa def takk bagaam dem Medine fii bi makkatin ama asirin fi sawali bada tariqu mawlidihi ɗum ja tek so jahli waaw mamalaji Malick Go wax nga léegi Aïssa kañ la ko nabi tàkk waaye balaa ngaa avancé Aïssa kañ la judd Maodo xamoo ko mu ne xam naa ko fu mu juddoo xamoo ko mu ne xam naa ko mu ne fi màkkate ci màkkate ama asirin ci atum fukkeel ba bañ ñu nuyu leen ci alayhi salaam fi sawaali ci weeru digg jalaari sa gànnaar ñu ne mooy taarix ko mawlid taarix mooy tudd yonent bi si daal yi ci ñeenti nit bu mag bi ci yónni di doon yore xanaa leer mu ne fii tey ba tey xaraba yetaa kaana mubtaliyan biha laha asadul awaami baldatu mi masaw Papa Idrissa Mawlaaj Maal dafa garaaw ba buy jàngale xalaat uruf yi uruf yi muy utilisé feeñale bi makkata bi makkata wala déet makkata bi makkatin bi makkatin bi fii mu ne fii taybati fii lu tax mu def bi bii mu def fii te ba alfu jari min maani attaahiya xaaral fu jël mi maa ngi asal fii bu tax fii bi fii fee fii loolu laa bëgg ñu la jënd buñ ko yombal yomb. ma nga juddoo màgg xam nga lu tax juddu nga sabal ko juddu nga sababu ko dañ koo sabal moo tax moo di baaxu daagee dañ ko yëkkati teg ci kaw kenn juddulul sabab waaye fii nag foo ko dégg yaa ko créé kuy kuy kuy jël sa soxna ñu la koy jébbal yaa tànn sa bopp bi waaye tànn bi si juddu moom amul. Mata si bu ne si mu ne bi bi mi jiddu tan ko way si bay ko koy mo tan bi bis fii fu jari ñu naa ne asaf yéen ba araf jari ne attaque yéen aka nee ko ar no ali dégg li may wax fii tay batil awayda gaana mubtaliyan biha la akatal awani fartasimi man la si maari fartasimi samay wax fartasimi bu la neexee fartasimi bu la naqadee fartasimi ma daaneel foofu mu ne Kaana amal na Abdou Aziz Kaane Ba amal na muftaniyan muy aji xaraf bi aay ca aay lahaa booba ñeel na ko asatul awaam fan fukki tasu bi na nga mu samay wax waaye fii tay ba ma nga amee ca max ca Madinatul Munawwara ama eda première année lañ ko ko jëppal kon dafa mel ni ñu ngi noonu